bisimila ci yéenekaay l'observateur lañ koy daal di ak li nga xamante nii moo gën a fës ci li nga xamante ne nii moom la ñuy waxtaanee jamono ji muy lu jëm moo di président Macky Sall ngi nekk ci ay problème yoo xamante ne nii yu dul jeex ndax li ko waral rek moo di coow yooyu yëpp ci noddam la tegu waaye looloo waral yéenekaay bi tamit fësal ci li nga xamante nii jamono ji mu ub boppam moo di liet naa di nga xamante nii moo di ministre Abdoulaye Daouda jàll ak DG bu kut xeex gi nga xamante ni ñu ngi ko doon xeex foofule ca ñanga edi ca boobu le ziar bi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal ca Fuuta loolu waral direct ay moom tamit fësal ko ci nga xamante ne ni moo di ñooñu Abdoulaye Daouda Diallo yi ak yu Cheikh Oumar Anne ñoo doon xeex fële si ziar bi nga xamante ni amal nañ ko ca Fuuta mu nekk mbir moo xam ne nii nag sëriñ bi rafetlu ko benn yoon teg si sax ki nga xamante ne ni moo di président Macky Sall jamono ji interpellé nañu ko dañuy delluwaat ci l'observateur wax ci li nga xamante ne ni moo di attaque ak menace yi nga xamante ni Idrissa Seck amal na ko ca sali ak laaj yi nga xamante ne ni jamono ji ñu ngi koy laaj ci ki nga xamante ne ni moo di ancien IGE bu chef de l'État président Macky Sall yëkkat ci ay kàddu di ñu wax opposition bi bu yaakaaree ne rek taux de pourcentage bi toll na ci un pour cent dinañ ko wàññi ba mu toll ci 0,5 wala sax 0,75 pour cent yéenekaay bi moo ko fësal ba tey mbirum parrainage ak lu jëm ci mobilisation moom la laas quotidien fësal ci xëtam bu njëkk di wax ki nga xamante ne ni moo di Mimi la ko Macky Sall dénk lépp loolu nga xamante ne ni mooy parrainage ak mobilisation ci noddam la ko teg yéenekaay bi di ñu xamal ni Mimi Touré entame son sale boulot waxuma sale de Sall muy leer tàmbali nañ ko liggéeyu Macky Sall yéenekaay bi moo ko fësal ci xëtam bu njëkk ku ci bëgg am lu la leex yër ko ñu dem ci li nga xamante ne ni moo di direct info ñëw ci mbirum parrainage ba tey attaque bu Samuel Sarr ci PDS direct info di ñu xamal ni tekkaaralu ki nga xamante ne ni moo di Karim wadd yéem na leen lool ñu tàbbi ci la Soleil yéenekaay ñëw ci diggante laaj tontu gi nga xamante ne ni amal na ko ak maître Oumar Youm nekk directeur de cabinet bu président Macky Sall yéenekaay bi di ñu wax ni ki nga xamante ne ni moo di Macky Sall jamono ji ubbi na ay discussion ba tey ci yéenekaay bi Mimi Touré sànni ci ay kàddu lu jëm ci wàllum parrainage bi xamle ne ne parrainage bi indiwuñ ko ngir éliminer kenn li ko tax a jóg rek moo di régler lépp ba mu ne cocc ba tey ci yéenekaay bi waaye mbirum Sibourou tamit fësal nañ ko ci bu weesoo parenage bi ndax ki nga xamante ne ni moo di président Macky Sall yëkkati na ay défi ngir li nga xamante ni ñu xeex lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum Sibourou ku ci bëgg am lu la leer yëral Le Soleil yéenekaay ñu dem ci Le Quotidien yoon bi nga xamante ne ni jamono ji moom la ñuy tàmbalee tracé moo jëm ci 2019 ba élection ya ki nga xamante ne ni mag moo di Idrissa Seck yéenekaay bi nee nañu jël na péage bi yéenekaay bi fësal lu ci mel ni séminaire bi nga xamante ne ni transformé nañ ko mu nekk congrès d'investiture yéenekaay bi tamit delluwaat fësal ci li nga xamante ne nii moo di président réew mi lépp loo xamante ne nii décliné na ko maanaam ay pexeem ci li nga xamante ne ni moo di présidentielle yu 2019 yi ñu dem ci enquête yéenekaay bras de fer diggante nguur gi ak jàngalekat yi yéenekaay bi duñu xamal ni ab radicalisation am na coow li nag li ko waral moo di marché bi nga xamante ne ni enseignant yi amaloon nañ ko ca Ziguinchor ba takk der yi tasaare leen ay xeex ay daanu ay xëm ay téye sax am fa loolu nag enseignant yi rafetlu wuñ ko benn yoon saawur seen nag yëkkati ay kàddu ci yéenekaay bi di xamle ni mbir yi daañu ko leeral ba mu leer nañ teg ci rafetlu ko benn yoon daañu ko leeral leeral ba mu leer naññ ñu dellu siwaat ci li nga xamante ne ni moo di mbirum sàcc xale la ca mbuur am na ab ni bu moo di l'observateur foofu la ca Parcelles Assainies la xewee unité 13 ab ndaw boo xamante ne ni dañ ko nii moom la àndaloon jamono ji nag mi ngi fële ci hôpital Albert Royer moom dafa mel ni bu buñ ca weesoo ci biir l'observateur dañuy àddu ba tey ci li nga xamante ne nii moo di 138e appel du di fet yi nga xamante ne nii sey dina Roho Laye amal na ko mu nekk koo xamante ne nii nag bu weesoo kàddu yi nga xamante ne nii yëkkati nañ ko ci biir l'observateur li nga xamante ne nii moo di seen kóolute ak ànd gi nga xamante ni ñu ngi koy àdd ndax li nga xamante ne nii moo di appel bi tàmbali na tey ji ñu jeexalee yéenikaay ak tàggat yaram tàbbi si stade le quotidien du sport yéenikaay bi duñu fësal ci lu toll 44 bi yi nga xamante ne nii Sadio Mané dugal na ci premier ligue yi yéenekaay bi di ñu xamal ne il est le roi des lions maanaam buuru gaynde yi Demba Ba di yëkkati ay kàddu di wax Sadio dafa décider ngir ñu fàtte ko loolu la yéenekaay bi fësal waaye ba tey ci yéenekaay bi tamit ki nga xamante ni moo di jaafara yéenekaay bi nee nañu mondial 2018 ndax dinañ leen won loo xamante ne ni mësuñu ko gis ñu jeexale ak suñu lomb suñu lomb ñëw ci diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye 2 ndax yéenekaay bi dañ doon sikki sàkk ndax Balla Gaye wam Gris moom la ñu jox ndam li yéenekaay bi dëggal na ko ne ñu ki nga xamante ne ni nag moo di Balla Gaye 2 confirmé ne nañ ne moom moo daan ki nga xamante ne ni moo di Gris Bordeaux yéenekaay bi ba tey yëkkati ci ay kàddu ki nga xamante ni moo di premier tigre de Fass mu di mbay Guèye yéenekaay bi di xamle ne Ama Gris Bordeaux nekk na ab combat boo xamante ne ni bu mën a nekk la lépp mën naa ne de ñu yendoog jàmm ak salaam ka jaax dajal